innama yamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqami salati wa ita'i zakati wa lam yasa ila allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin innama yamuru masajid allahi man fii ci euh, dëkk bi ñuy wax euh, gàdd euh, ci màggal bi nga xam ne moom lañu ñu fii amal nga xam ne dëkk bi ressortissants yi ñëwaat dajaloowaat fii ngir dundalaat dëkk bi tabax fi jàkka ñu nekk ak ñenn ci ndaw ñi sëñ bi tur bi naka la. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa leen nuyu di leen bu baax a baax maa ngi tudd Modou Diagne maa ngi cosaanoo gàdd sama yaay cosaanoo gàdd sama maam yëpp cosaanoo gàdd. ñu ngi leen nuyu yéen itam baax a baax di leen ziar yéen waa 24 actu ñu ngi leen di siif bu baax a baax vraiment di leen ñaanal tamit ah, li seen yéene ci liggéey bi yàlla yokk leen fu gën a kawe kawe barke Seydina Muhammad ah, bis bi moom xanaa kontaan rek ah, ak mbégte yeek xol bu sedd vraiment xam nga woote say mbokk wuy si la vraiment loolu dafa neex di ñaan yàlla tamit ñu yàgg koo woote ñu yàgg ñoo wuusu lépp luñ ci séntu rek ñaan yàlla yàlla yóbbu ko mu gën a kawe daal vraiment di wax ne suñu xol yàlla sedd na tey suñu maam yi nga xam si ñoo nekk barsàq ku leen yeewoon tey ne am na lii amaana dina ko gëm de mais lu leen bett lay doon waaw vraiment di ñaan yàlla daal mu gën a yokk rek waaw ñun jeunesse bi tamit damay dégg sama morom ñu gën a jàppalante te xam ne àdduna moom amul solo te àdduna islam dañoo toll foo xam si ni bu doxee ndaw yi ñoo ko doxal ba ci dëkk bi da ngay xool li fi nekk nii tey bu egsee fii tey ginnaaw yàlla jeunesse bi la kon ñu wax jeunesse bi daal ñu gën a jàppalante gën a ànd doon benn xam ne réew moom islam bi jeunesse bi ñoo ko yor Serigne Ass Diagne wax dëgg yàlla moom kenn la parce que tey bu ko neexoon gis nañ fi ay moroomam tey bu ko neexoon mën na ne ah li ma am daal mën na koo def comme ñeneen yaa xam nga li ma wax mais moom defu ko bi mu amee dafa ñëw bokk ak ay mbokkam tamit ay mbokk mu xam ne moom tamit lim am bokk nañ ko ñoom di ko ñaanal tamit ah, aussi lépp loo xam si ni bëgg na ko ci yoon wi rek bëgg ko ci Gady Diagne di ko ñaanal yàlla defal ko loo xam si ni kaw njortam la doon te dina am incha allah rabbi mboolem ñi fi nekk gën ma fee nekk ma ma fee ma ca nekk ma a kon maa leen di sant leen gërëm di ñaan seen taxawaay yal na ko yàlla yeggal barke Sidina Mohamed bis bii day bis bu rëy ndax bis boo xam ne say maam ñoo sañcoon gàdd sama waajur wu tedd ba bañ koy sañc ñett ñett muy sama sama baay di sama di ñetti nit ñoo ko sampoon mu ñaanal leen leen bis bi dem ba rëy dana dem ba ëpp seen loxo den te ba am ba ngeen am ci la kawe njort daaw la làqu waaye la mboqoon dara tebbi ko si mboolem lam ñaanal rek sun borom jàpp na lii ñaan ko nangu la takku nañ boole nañ seen xol muy be ndax lii dëggu rek moo ko waral ndax soo dëgguwut soo xasee dëggu nag loo jëm danga ko mën te dañoo dëggu dañoo am pëste te yow mii ànd ak sama doom ci maa ñaan barke Sidina Mohamed lépp lu ngeen jëm rek yàlla na ngeen ko mën barke Seexul xol sedd na sama mu yàgg ak taxawaay sant As Diagne sama doomu ndey ndax As dañoo bokk ndey bokk baay papaay yaayam ak jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay te As dawul dara As sa ndam luwul dara ba muy xale bu tuuti bis bu at mu jot day wàcc fii saakoy ceeb mu dem ba Touba ñëpp kon mu dem tey ba egsi fii maa ngi ñaan ci ba Sëriñ Touba As fu mu yegg yal na yegg ci barke Seexul Xadiim sant sama yàlla ma itam yàlla fan ñu gudd barke Sëriñ Fall bis maak ma booba ñoo bokk ndey ak baay maay caatu yaayam waaye lim ñu defal nii defaluñu ko ñun kese askanu gàddu yëpp la ko defal man mënuma wax ci moom ndax bu ma waxee ci moom sama xol day fees waaye ñu ngi koy bàyyee yàlla rek ak képp koo xam ne nii ñoom ñaa bokk dëgg ka gàdd yàlla defal leen lu kawe seen njortu ci pencum gàdd mii moom tamit yàlla defal ko xéewal goo xam ne ni ku ne da ciy sax mu gën a dooleeku nga xam ne ay projet projet projet da ciy juddu wasalaam merci beaucoup kontaan naa. macha allah vraiment kontaan nañ ndax moom premier bi mu njëkkee fayeeku université ceeb la ko jënd ñëw jox ko sama yaay mu indi ko fii gàdd kon lii nekkul tey rek démb la woon waaye lépp nag njaag la muy sama yaay. grâce à mère laa moom. ñu nekk nekk Serigne Djily Mbacke moom Serigne Cheikh euh, Bintu Serigne bi ndax mën nañoo xam lan moo waraloon sa teewaay ak euh, ci bis bi. Euh, baada aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alxuril mayamin wa baadu uhayiukum jamian bi tahiyatin mubarakatin tayiba min indillahi qailan lakum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa nuxassisu attahiyata almubarak ila xalifatina alxaali cheikh Sidi Muntaqa Mbakke wa nad'u llah an yahfadhu wa yar'ahu waffaqahu xata akmala jamia tamanniyaatihi min ajli xidmati islam wal muslimin suma ba'da dalik ginnaaw loolu sëriñ bi ñoo ngi lay ziyaar ci rafetlu laaj yi ñuy laaj mu jëm suñu teewaay dañ fee teew ci ndigalu Serigne Cheikh Bintu Mbakke moom sëriñ Mouhamadou Xabbaan moom Cheikh Ahmadou Numbe moo ñu fa yabaloon ma ànd ak sama mag Cheikh Ahmadou Mbakke te ko ñaan yàlla dëgëral ko bu baax mu jox mu ndigal ci kàddu yi. liñ fi teew du dara lu dul ak mbokk akuk taalibe ak dëkku bu yàgg ndax mbokk gi moo fi dajal ni ñëpp ndax dañuy wax ni mbokk ñett la al ixwatu fi diini. al ixwatu fil nasab al ixwatu fil jaar mbokk ci wàllu diine moo am ak mbokk ci wàllu dëkkandoo ak mbokk ci wàllu askan. mbokk si wàllu diine nangeen ngeen na ngeen bokk mbokk ci wàllu diine bi ñu ko waxee na ngeen bëggante na ngeen wóolonte na ngeen dimbalante bu ñu waxee mbokk ci wàllu deret mooy na ngeen bokk yéene na ngeen bokki pexe na ngeen bokk la ngeen am mbokk si wàllu dëkkandoo. bul ko yab bul ko xeeb bul ko jëw mbokk nag mënees na ko ñett waaye mënuñ su ñett mën nga leen a ëppale waaye mënoo leen ëpp mën nga leen gën waaye mënoo leen a génn mën nga leen raw waaye boo àndut ñoom saw doxalin bu rafet loolu Serigne Touba moo ko dénkoon kon mbokk gi noonu la demee ku nekk war na koo rafetal ñëpp ku war a bokk ar jamaatu rahma ba ca topp mooy ci wàllu jumaa ji jàkk ji ñu fi tabax ñu néegub yàlla lu am solo la li ci des kay mooy jëm koo dundal dundal gi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay ahadis yu bare bare bare wax ne asalaatu salaatu jamaati afdalu min salaatil fadli bi sab'i wa xisrin darajatu muttafaqun alayhi nee na jullik mbooloo moo gën jullik kenn gën na ko ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar jëleen ci Abdullahi am nañu ni Omar ibnu Xays ñu gën koo miine ibnu ummi maktuum noddukat la woon mu ni dani qaal ya rasulallah inna almadinata kathiratu alhawaami walsibaa fa qaal rasulullahi salallahu alayhi wa sallam tasmahu hayya ala alsalah hayya ala alfalah fa hay hala dafa ni ko madina munawwara dafa bëri ay xawaam maanaam ay jiit ay jaan ak i ndeg ment mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw ndax da nga dégg nodd fa nga nekk mu ne ko waaw mun kenn dellu teew di julli kon julli gi lu am solo la waxaan na ci beneen xadis walaw annakum salaytum fi buyutikum kama yusalli hada almutaxallifu fi baytihi la taraktum sunnati nabiyikum walaw taraktum sunnati nabiyikum la dalaltum laqad raaytuna ama yataxallafu anha illa munafiq bu ni mu fekkoon da ngeen di julli seen i kër kem ni koy waa ji di defee di raasaan bañ a julli ji nekk këram kon bàyyi ngeen sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku bàyyi sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na réer te nee nan ab naa feq moo dul julli ji jàkk moo tax suñ bay jax naan bàyyil faw biddanti tey yeewu njël ku dul yeewu njël kat jot cant ga na nga yeew yow njëkk waxtu fajar di fàkkuy ngërëm nag ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jug yow dem julli biddanti nga nelaw lekk wax néewalal ñett yi te boo néewul ñett yëkkat të nga nelaw tuuti mus tuuti wax tuuti def nañ jàkk ji def nañ kër suñ tubaa gi dañu suñu ñaan yàlla mooy bi fii ak at maximum ñaari at machines yeeg yëpp jënd nañ leen ba pare ñoo ngi defar usine bi Touba mais ngi ñoo ngi ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom mu indi usine bi fii on a aussi benn forme communautaire euh, boo xam ne nii loolu moo tax ñu indi expert professeur Pascal nos experts de l'université de Saint-Louis université virtuelle bu Sénégal université de Dakar le recteur de Bambey était là personnalité monde universitaire boobu yëpp ngeen gis fii pour suqali dëkk bi et que suñu suñu comité bi Mor mi ci la bokk Nijaan Mor Mbaye mi ci la bokk Talla Niang ci la bokk Ibrahima Diagne moom mooy moom mooy trésorier bi pour montrer que ne xale dëkk bi yëpp dañ ci jàpp pour mbir mi dox. pour le moment comme j'ai la majeure partie des moyens man maa koy indi ak samay partenaires mais aussi dëkk bi commencé nañu cotiser euh, ferme communautaire bi dëkk bi ñoom ñoo koy def peut dinaa leen ci jàppale mais damay wax ne. bul wax moyen yàlla mooy yàlla mooy def ay mbir yow da ngay sabablu rek da ngay da ngay mébét yàlla mooy mottali may xam nga dañu ne alal suy ñëw ah, poqe mën na koo xëj suy dem càlla la mënu koo téye donc yàlla moom mooy mettali te yàlla mi nga xam ne ni moom mooy mottali yàlla nañu mottali donc suñuy bëggee euh, soqale njaboot gi dañ leen di dañuy door ci li ñu xam sàmm xam nañ ko bay xam nañ ko léegi transformation produits agricoles yi mooy li nga xam ne nii ñun loolu lañ loolu lañ bëgg a def pour nax fexe ba ni ñu dellu si fi xam nga kër gi soo fi duggee mun nga sangu mun nga kii mun nga def tout c'est moderne la moxée elle est très bien faite et que lii alal rek defu ko xaalis rek defu ko donc euh, bu ñuy wax affaire moyen kese c'est vrai moyen c'est important mais avoir des gens compétents équipe bi ñoom ñoo def lii pas pas pas xaalis kese. tey jii amul ci gox bi képp des. tey jii suñu maam yi suñu ñëwee dañuy kontaan la ñaan yàlla rek li fi mébét yàlla sottil ko te mu jig njaboot gi jërëjëf waay merci beaucoup. ñu ngi taxaw ak euh, oustaz Mor Diagne di ku ñu ràññee lool ci dëkk bi waaye tamit liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def oustaz gannaaw bi ñu la nuyoo euh, ñu bëggoon rek nga yëkkati kàddu jëmee ci bis bi. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. yasir leel asira wal yasira warul yas ci xaaba xadira barkeb sëriñ ginnaaw ba nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci sangub sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal alxalifatul am li taifatul murdiya Serigne Mountakha Mbacké al Basiru di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko ba lépp lu mu yën liggéey ak Sëriñ Tuubaa eh, ci islam ji rawatina yoonu murid suñu borom defal ko lu kaw njortam eh, waaye tamit di ko ñaanal kilifa diine yëpp di ko ñaan tamit kilifa xaada yëpp di ñaanal way dawlu yëpp te ñu fi ba ngi yàgg leen ñaanal euh, ndeysaan As Diagne ñu ñaan ma booba Diagne suñu borom gën kaa kat na gën kaa dooleel euh, moom itam mu jàppale ñu ay partenaire am tamit euh, jàppal jàppal si ba gis ngeen jàkka ni mu mel tubaarkàlla moderne nga xam ne sax mën nañ kaa jàppe juma kër ne ndox mi ndox mi ñëw na croix bi ñëw na wax dëgg yàlla kon daal wax dëgg yàlla daal masha allah daal lu am solo la daal xam nga doomu aadama suñu jàppoo bëggante te yàlla tax lu ne dañ koy am waaye tey jii bu fekkee ne ke daa aw fee kee xaaj fa duñ dem mbooloo mooy doole il faut ñu jàppante nekk si benn ñun waa Gàdd nag yàlla doon dimbale daa am kilifa ndax tey jii lu mën a xew xew xew am na koo xam ne bu ne ee ñëpp bàyyi na koo xam ne bu ne bu ne déedéet ñu ñëpp ñu def am kon kon loolu déjà suñ première fois mooy loolu bis mooy ñun xale yi ñun ñoo taxaw di ñaanal ñi nga xam ne à passage dina nuyu nekkuñ fi ku mel ni Cheikhouna Diagne Mourou Mbacke Diagne Malick gaa yooyu nga xam ne fi Euh, tubaarkàlla def si liggéey bu am solo ñu taxawal lii ndax su ma jum ren mooy ñeenti at yoo xam ne ñu ngi taxawal ndaje famille bi danoo jàppante jël suñuy dërëm jël suñuy juróom bëggante te yàlla tax soppante kenn ku ne boo amee saw sa sa junni nga jël sa juróom ñett téeméer yóbbu sa kër ñaar téeméer nga indi ko gàtt noonu lan def ba am lii as moom dëgg yàlla bëgguñu wax si moom ndax bu ñu waxee mën na ne man man mën naa demee neneen ndax xol day tooy ndax adduna bi li gën a jafe mooy ki nga xam dafa am ba pare nangu ne am na waaye wut di dimbali ay mbokkam comme ni mu waxee léegi tey la sum euh, tey lay feetu cinquante ans de de anniversaire juróom fukki at su ko neexoon am na xaalis bi dem sa Dakar wala mu dem beneen pays def def fa leneen waaye dafa ñëw fii si bis bi si dëkk dëkk cosaan nga xam ne fii la juddoo daa ko fiy defee kon loolu amul lu ko gën a rëy loolu nag euh, projet yooyu day ñaan tamal bi agas bi laa baram man nag yàlla daal dogal waa dëkk bi dañ ma wóolu doyloo ma te nag mën naa ne maa si gën a nekk gën see xeebu lool loolu nag mën naa ne dama koy sant suñ suñ Tuubaa suñ kanam daal mooy projet yi lu mel ni usine bi ak CC bi nga xam ne ñu ngi koy def lépp loo xam ne mën sa juddoo comme ni ko As waxee léegi yëmul suñu ndong képp koo xam ne rek daal yaa ngi si gox bi lu mu xullee euh, ndulo saam pël pël Malick saam yëpp dëkk yi wër fii yëpp daal ak képp koo xam ne rek daal doomi Sénégal nga sax moo gën a gàttal képp koo xam ne doomu Sénégal nga te amoo am xëy ñun waa Gàdd fas yéene na jox la am xëy mooy xëy. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yéen mbokk yi fi teew ngi leen di nuyu. te di leen sant di leen gërëm tey ñaan yàlla jataay bii bokk ci jataay yi nga xam ne muy ngën ji jataay lii nag dafay loo xam ne lu rëy la ndax cosaanoo cib dëkk toog dem ba mu yàgg nga dellusiwaat ca dëkk ba taxaw woote fa mbooloo mu toll mbooloo mii fi toog ñëw teewe ko alhamdulillahi rabbil alamin bi mu loo xam ne dafa jëm ci santaani sunu borom subhanahu wa xam nga ne jataay bii ñi ko teewe te sant jaañ ci diggante jaañ ak xulle ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi te bokk fi te mën nañ ne cosaanoo fi xam ngeen ne la ko dalañ ci lu yàgg ci dikku sëñ Mandoumbe fii ci dëkk bi am na jeexital am na nuñ ko war a mën a waxtaane ndax diggante kañuy wax ardu mule xam ngeen ko ci digganteem ak sëñ Madou ci seenu doxalin ba li lépp am tey waaye kër gii ngeen di waxtaane ci askanu njaañeen dara am def ci musta génn kër sëñ Mandumbe ndax dañoo jaxasoo moom ci saayir ak ci baatin jur ay doom tudde ko jox ko seen bopp ànd ak moom ci lépp ba mu jóge fi ngeen topp seen njaboot ga la jëy firnde moo di moom mii nga xam ne day yi te magu ci di alaaj Jaañ mu buuba xam ngeen ne baayam moo doon dawalal sëñ Madu Xabbaan yal na yàlla yokk leeram bokk yi mbir ngi ni moo xam ne mu rëy la mu ñu rafetlu la te yéen ngeen di ay ndaw rek te dajaloo def ko te xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy gàddaay keroog gone rekk la bàyyi ca néeg ba muy Seydina Aliyun karamallahu wajh booba ay atam néew na lool mu bàyyi ko kon yéen ndaw ñi na ngeen jëlee leçon ci loolu xam ne nekk ndaw du tee xam la la war nga di ko def na ngeen wóor ne yan ba mag ñi yéen a woon yéen yéen a ko war a yenu tey ndaxte kenn ku nekk sa tëb bii na bàyyi muy rëq sa ndigg loolu musaaka moo ko waxoon ca wala falu suñ mënumbe wa kon na ngeen xam ne kon seen wayjur yi nañ doon doxee noonu rek ngeen war a doxee kon su ngeen jëlee doxin wii kon fas yéene dekkal dëkk bi ci dox doxin wii te li ngeen fi njëkk woote mooy ngeen samp jàkka ngir yàlla dajale boo waa tund wépp ngir yàlla di waxtaan ak ñoom fas yéene def yeneen liggéey yoo xamante ne ña fi war a mën a toog ëllëg ñooñee danañu war a mën a saytu ci liggéey boobee lu leen jariñ luñ mën a jaamoo yàlla kon loolu yi ngalawaay na ci kenn ku nekk tàbbal sa loxo te dox ci doxin mu nga xam ne moom nga ci war a doxee ndax li am solo mooy ay ndaw ngeen Eh, dugg ci àdduna duggee ko duggee nu rafet wi yàlla bu ngeen fakkastalu yàlla bu ngeen dara jaaxal yàlla ngeen ko yóbbu fu ngeen ko bëggee ci barkeb Serigne Touba. loolu nag yàgg na da ngeen ci daan daje at mu jot di ci waxtaan seeni waxtaan ngeen di ko def ba tey lii far dolli ko at ci ëllëg ngeen am fi jàkk am fi yeneen projet yoo xam ne ngeen ko war a def. loolu xam ngeen ne kon bu lu jëkk la nekkutoon dëgg kon lii kon du mën a nekk kon dëgg kon kon dëggug lu jëkk la moo firndeel dëggug tey jii kon na ci ñëpp jàpp. bu ci kenn dellu ginnaaw nañ ko fonk te xam ne ndam la ndamul tund wi la ndamul maam ya la ndamul ñëpp la waaye allah ji na nga xam ne lii nga xam ne da ko bokk ak say nawle di ko def ngeen fës ko yéenee def ngir yàlla ak bokk rafetale ko seen bokk ak jaambur boo xam ne da cee yem itam te bëgg cee bokk te di ko jubal su boobaa itam na ngeen xam ne def ngeen rek la leen war leen war moo di ngeen àndandoo nekk benn te xam ne mag ña dañoo àndandoon boo demee saam mag ña fa nekkoon dañoo àndandoon boo ñëwee ci gàdd gi boo demee xulle ak foo ci mën a dem rek mag ña dañoo àndoon te ànd googu ñu ngi ko doon jooyal jëme ko sëñ Madu sëñ Mandumbe eh, di ko doxal ba suñ jonne yàlla tey jii ñun dey sant nañ leen gërëm nañ leen yal na yàlla sant yal na yàlla gërëm kon alaa ji nga xam ne nii nga fi taxawee danga ngaa mot li yéene gaañu baax ya yéene yi gaañu baax ña nga mot li waaye bu fekkoon ne da nga koo bëgg a mottali itam te àndoog sa bokk yii di ndaw ne yow na la wóor ne kon boo ko mottalee du am solo du am xorom waaye bi nga xamee ne yàlla dogal na nga am jikko ju yaatu ba mën a ànd ak say bokk mën a ànd ak say morom taxawal lii fas yéene woote li waj ilaahil karim na ngeen xam ne mbir ngi nii mu rafet te itam yal na yàlla dafa leen ci dam lii daal la ñu li ñuy wax yal na yàlla dimb leen yal na yàlla taxaw leen. waaye damay ñaax ñi nga xam ne mooy gone yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw aas ak asmi ndax kat képp ku dugg commencé liggéey kat euh, commencé liggéey kër sëriñ Touba commencé liggéey néegub yàlla bu ba loola yegg nga ne naa commencé liggéey sama bopp ah ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla yeggale ndax ku liggéey kër Serigne Touba kat liggéey néegub yàlla. ba noppi ne maa door a commencé liggéeyal sama bopp kat ñu ngi ñaan yàlla liggéey yal na ko yàlla yeggale te bon yàlla dafa leen ñu ngi sant yàlla di julli ci bi sallallahu alayhi wasallam moo bu dee am na lu ko neex tey Ali jërëjëf Diagne gannaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi sant ma buye ak Lama Diagne sant naa Ali ak rakkam sàgganewuñ ma sànniwuñ ma teg nañ ma fu ñu war a teg jërë ngeen jëf Diagne sama xol sedd na ko lii nag nga tàmbali wane ko tey giñ naa ne dana yegg fu ëpp sa njort ndax garde dana doon ay etaas ne xëy yàlla te yaa ak Ali Gallo mi nga xam ne dafa toog rek fii ne lépp dana ma fekk billaahi wallaahi taal lépp dana la fa fekk Ali jërëjëf Jaañ laa ma jërëjëf Jaañ ma boobu sàllaaw dinaa naj sama ronkoon ñu ma jooy waaye sama digganteeg seen bàyyi yéen ñi xam ngeen ko xam ngeen ko awa jaañ mee toog xam na ndax ba mu jógee Abidjan dana kenn du ubbi sama walis ku du wóoragul jël caabi ji jox ma ne ma tànnal bu la neex ma tànn bu ma neex boole kook sama boroom kër ñaw mu jël doomam jii di Kiné Diagne tudde ma ko Ali bu dee ne maag sa baay ñoo bokk baay ndax mag ñi day luñ wax dëgg la ci ñoom bu dee ne maag sa baay bokk baay nga def jëf ju rëy ji yal na la yàlla jox lu rëy al yàlla boo daanu yàlla boo jëng yàlla boo ñee say képp ku la bañ de yërëm naa ko jaañ loo tiim yal na nga ko yëkkati loo yëkkati na ci yàlla wasal barke yàlla boo gàcce ay yàlla boo sëngeem yàlla bu say noonu am seen sago man nag maa ngi lay dénk leen yal na yeex suma fi jógee na ñëpp def nii bu kenn ay doomam bu kenn lii bu kenn laa buñ seet loolu nañ seet sama jëmm ji nga xam ne gàdd gii laa dëkk dama sori nag ndax tambala dëkk il faut que nag ma jaarale fi tuuti tagg leen ndax mënta ñàkk doon nañ ma naan jubu yoro anta yor da njëkk ngoon ni jaar ak lam bi ci tulaar juma ci jàkkaam jàll mu ci gigis gi buub mi ci maa ma sekk maa jigéen jimbi jàllu njëkk ngoon ngi lam mu ci tulaar man du mee ngi njaareem njaañ nga da ngi ci Tuuba dama koy gàttal nag jërëjëf Diagne jërëjëf Diagne jërëjëf Diagne sa bàjjen nag lay gërëm di la ñaanal bu fekkee ñaanu bàjjen dëgg la te mag ñi dëgg lañ wax sa bàjjen la yàlla na nga fi jóge am loo xam ne yaag say doomi yi day lu ëpp sa njort lépp loo tiim jaañ yàlla na ko yëkkati loo yëkkati yàlla na ci yàlla wasal barke jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñaan na ko sunu borom ci baatu la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi muhammad ya rasulullahi nabi sallallahu alayhi wasallam di sant Serigne Touba di sant waa kër Serigne Modou Xabaan bu baax di sant sama tànt wëragul mii fi jóge léegi nga xam ne mooy xalifa képp ku sant Diagne di sant Lama jaañ mi nga xam ne sunu mag la di sunu bàjjan di sant mboole seen nag kuy sama rakk bu sant Diagne di sant Alaaji Buuba Diagne mii di sam ndax sam papa lañ ko dibbee lii mu def tey su ko neexoon moom kese moo koy def waaye dafa def dafa teg gënam dëbb ne samay mbokk yéen ñépp ñëw leen dëbbale ma ñun ñëpp ñu ñëw wuy si ko jaañ lii nga def yaa xam li nga bëgg de yaa xam li ngay nasal ëllëg waaye yàlla bu yàlla tas sa yaakaar yàlla na yegg new yoon di gërëm mboole seen nag ñi ñëw wuy suñu ndax kenn ku ci nekk dangaa dagg say itte dagg say soxla te ku ne xam ne ni fii xawut a neex a ñëw waaye yéen ñëpp mboole seen ku jóge Touba ku jóge dakaar ku jóge Saint-Louis ku jóge Thiès jóge Kaolack yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di sant nag képp kuy ressortissant gàdd ak tund wi li ko wër lépp ñu ngi leen di sant ma buuba fa la jàngee looloo tax nag boobu mbir mi jógee ñu il faut ñu teew kilifa gi di Ousmane Thiaré dégg ngeen ci rajo yi université moo am yëngu-yëngu mais moom dafa waroon ñëw teewee teewal ko teewal institution bi mais boobu lii amee gis na ni se ñu defee délégation bu nu gisee gis nañu suñu jigéen madame jóob madame Diop nag ku ko wax sa université bi ëpp na ñaar fukki at ak fanweeri at ndax quatre-vingt-dix ba léegi yàgg na si la nekkoon nag ma buuba mu nekk xale bu tuuti ñëw def ko yaay bu ngeen gisee délégation bi étudiants yi ñëw nañu bu ngeen délégation bi professeurs yi ñëw nañu loolu nag lu ko wane ni mooy relation bu ma buuba amoon ak nit ñi ndax kat université bi bu ñu xoolee quatre-vingt-dix ak léegi lu ñu foofu formé si nit ëpp na ñeent fukki junne nit waaye nag ku nekk yaa ngi sa ruq di fa toj sa bopp nen mais université bi su ko taxawal. boobu lii amee ba léegi am na ñaari weer wala ñetti weer Mor Diop moo doon coordonné affaire bi bu lay waxee Mor Diop lan mooy rôle am chauffeur la ça veut dire que ma buuba nekk na mag nit ñi université. agent bu gën tuuti ba ku sa mag joxoon na la sa cër bu sëkk man mii bu ngeen ma gisee sama rôle infirmier la si délégation bi am na chauffeur am na manœuvre am na professeur am na secrétaire am na lépp am na ñoo xam ne sax sa koñ bi lañ dëkk rek dégg jëfandikam fab seen bagage ñëw mooy nag lu mu def dafa rafet te lii ma buuba def ñoo ngi profité di nuyu partenaire am yi fu àndal yi mais lii nag du ñuy ñaax d'abord ñaax ndaw ñu nekk si dëkk bi. mais du ñuy ñaax ndawu Sénégal yëpp parce que nit gi kat am na ñoo xam ne du ñu ubbi lu ne dans leur ville wala dans leur dafa def lu ne waaye mu ni bëreet damay woo sama ay mbokk lu may njëkk def mooy jàkk néegu yàlla fu nit ñi topp li jàll fi laa nekkoon di jàng alxuraan fi laa nekkoon di am coono gis mag ñi sama ndey ak sama baay sama waajur yi suñu maam yi lépp si alxuraan lañ ko defoon kon naa njëkkee si jàkk ça veut dire que yaakaar naa sama mbokk yi jóge Touba lii ma buuba def ñoom moo tax ñu def délégation ñëw sargal nañ ko xam na ni lu mu def mooy yoon ma buuba yaa ngi si yoon wu baax wi ma buuba nag lii bu ko defee fii ñun di duñu bett ndax 91 ñoo nekkaale boo mu nekkee étudiant la commencé di jëf jëf loo xam ne day jaw day jëmmal ñu mu nekkal loolu ñun mën nañ ko seedeel fii boo mu nekkee étudiant 92 yaa gën a 91 booba xale bu ndaw la ñëw fu am 17 ans 18 ans si la moo buuba commencé woon si ñun ñu mu nekk loon yenn saa yi mu ñëw ne ah bëgg jiin jaay la yenn saa yi mu ñëw def lii donc il a été toujours débrouillard nit la boo xam ne xamoon ne man fu ma jóge fu ma mënti nekk dama war a liggéey pour jën sama bopp fa gëmoon boppam donc lii ñun bettuñu si moom bu demee ba nekk en Europe dellusiwaat fii ni sama jaboot mais lenn lu ma si gën neex mu ni kat man xam ne am naa najaay am naa bàjjan am naa sama cousin am naa lii mais nanu fexe ba ñëpp xam ku nekk loo bokkal man kat lii ma bu def man xaw samay mbokk man waalo waalo laa mais ñun yaakaar naa lii teg na ñëpp si yoon wu rafet ñu def arbre généalogique bi ku nekk xam loo bokkal ñu bind ko si wolof bind ko si kii def ko si internet bi man mii sax bu ma nekk États-Unis ba si internet ni man kat ndeke fii ma jóge am naa sama benn mbokk bu fi ne lii lu rafet la vraiment bu bu buuba recteur bi Ousmane Thial sa promotionnaire bu ko neexoon mu jiite ah, ku jiite université promotionnaire am la kon bu toogoon fii day nekk recteur na moom ça di dire que lii ngeen am bu leen ko xeeb dañ leen di dëkk bi am ngeen doom ju màgg doom ju àgg sa kaw duñ koy xëccoo si àddina bi université duñ koy sarxu pour mu ñëw def fi dix heures de cours benn cours de mën na jël téeméeri junne moom day dagg paasam dagg lépp ni man ñii ñoo ma jàngal du leen ma fay maay ñëw maay fay sama hôtel fay sama lépp recteur bi moo seede lool. kon kii nag nit gu màgg la nit gu màgg la si réew mi parce que ñun lii la ñu soxla ñaata nit fi nekk Paris nekk étranger dem dellu si xamuñu seen kër lu fa lu ñuy añee lu ñuy ree ree am na ñoo xam ne toppatoo seen ndek seen baay kon ma buuba gërëm nañ la xam naa temps jeex mais bu doon wax si ma buuba ma leen fi fanaan ma buuba ñoo ngi lay gërëm di la sant recteur bi Ousmane Thiaré ma ngi lay gërëm di la sant directeur cours sa promotion gërëm la sant na la yan na la yàlla may wér lii projet yëpp dem muy nag yi muy usine bi lépp yàlla dafa bañ waat fi fekk jëf bi gën fële yoo gëm na sant moom bu ndax moom mii aas li muy ñàkk ñàkk jot waxtu bu ñëwee Sénégal lu mu xat-xat dana jóge dakaar ñëw toog sëriñ bi donte fukki minute la mu nekkee Touba wala mu nekk Dendey fu mu nekk dana ko fekk ànd ak yaayam ak ay rakkam kon loolu yëg-yëg la boo xam ne dox na digganteem ak moom. bu dul taale bi ak sëriñ yëggi rek doon na jar su wootee bis mu mel ni ndaje mu màgge ni sëriñ bi bàyyi ay itteem ñëw teewal fi boppam waaye nag nit fu njabootam teew mel na ne teew na fa kon ñu ngi nuyu mbooleem ñu teew ci barab bi di jiital ci nuyoo bi moom alaaji jaañ mi ak mbooleem ñu mbokkal bis bi di leen nuyu ci tur sëriñ bi te di leen sant te di leen gërëm di rafetlu it jataay boobu bu baax ndax jataay gënu koo màgg ndax jataay la boo xam ne li ko waral mooy dundal ak bokk ak fàttaliku mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo sanc barab bi ci ñaanal leen ci fàttaliku leen te defe naa ñaare yooyu lu ci nekk lislaam def ko santaane lislaam dafa santaane jokk ak bokk ak di ko dundal ak di ko rafetal Euh, te loolu euh, bis bi wane na loolu wane na moom mi mbir mi soqi ko ci moom ak bokk jaral na ko lu ne ndax ku ne xam ne ne fa mu jóge sori na te bis bi rek moo ko indi senegal ak lim ci jàngoonte lépp ci ay coone def ci alalam def ci léppam ba bis bi taxawe nii mel ni ba ku fi ñëw saxool xol sedd kon loolu ñu ngi koy xamal ne ko lislaam kontaan na ci moom Euh, famille bi kontaan nañ ci moom sëriñ bi it kontaan na ci moom ndax àdduna lii rek moo fi nekk te mooy jéem a xool lu baax xool li fi mag ñi bàyyi woon li fi sëriñ bi bàyyi woon nga jéem faa sa tànk dem caa def sa kem kàttan ba keroog wàcc di jot ndax loolu mënul ñàkk te àdduna kërug liggéeyukaay la te liggéey nag gënt a màgg liggéeyal lislaam liggéey liggéeyal say bokk te ku ne xam ne ne bokk na ci liggéeyal lislaam mooy tabax néegu yàlla ndax jàkka kenn moomu ko kudul yàlla suñu borom kon ko ko tabax moom nga ko tabaxal moom lu mu ci am rek mooy tabax waaye bu xasee noppi moom ñëpp ñoo ci bokk yam kon yàlla la ko defal yàlla mi ngi ko defal nag am na fay te bu dajee ak moom dana xam ne yàlla am na fay kon yàlla ko yàlla fayal boppam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne tabax nga benn néegu jàkka ak lu mu tuut tuut nga tuddee ko jàkka ne la wóor ni suñu borom tabaxal na la kër ci na soo àggee da ngay da ngay dugg kon man kon moom na rafet njort ndax ñaari ñaari yi mu def lu ci nekk dana may àjjana tabax jàkk dana may àjjana jokk ak bokk it dana tax a gudd fan dana tax a e, e, wërsëg wu yaatu dana tax dana barkeelal wërsëg dana tax it e, boo dee tàbbi àjjana loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis te yonent bi du waxtu wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxin yuha lépp lu wax rek suñu borom moo ko wax waxloo kon moom na xelam dal na njortam rafet ñu ngi koy ñaanal yàlla ci turu sëriñ bi suñu borom doole ko kattan doole ko wér doole ko man guddal aw fanam mboolem loo xam ne yéene na ko ci bis bi yéene ko ci dëkk bi yéene ko ci njaboot gi suñu borom defal ko kattan ak wér gu ko mën a àggale noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu mboolem njaboot ak Dendeye ndax eh, xëy na moo xat waaye ñëpp amoon nañ yéene teew ci bis bi ndax njaboot gi njaboot ko Dendeye leen kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi jégal ñëpp jërëjëf Mbacke yàlla Xadim bismillahi mu ni dil noonu dee ci jooy aduna dellu danoo jooy war ngeen déggoo te wooy jër jur ñu tool ba wàcc na wuy tool bi leemu dellu booy baykat yi lee ñu dellu fuuy gàncax gi ndaw gi leemu booy ngir walikat ba làqu na adduna yow fase lu juróom ñaari pase soo doon jigéen dootum tase sa war yu riñ landi alarba jee ca wam sasin keroog ba tey laa fase alarba jee ca an sasin fase ma dog na adduna war nga nu aama wam sasin delu nu war ci tam sasin innama yamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqaami salaati wa itaa'i zakaati wa lam yaxsa illa allah li mu bëgg a def mooy ñëw liggéey ak université Dakar université Saint-Louis université bu bu bu Bambey ak l'université virtuelle du Sénégal parce que c'est par ñoom ñooy ñoom une entre universitaires ñoom ñooy def projet

fii ak juróom benn weer maximum juróom ñetti weer bëgg nañu commencé phase pilote mooy dañuy jël ñaar euh, euh, ñaar fukki nag des testé parce que na moom li xam mooy da ngay commencé lu ndaw nga si après nga. loxo donc su ñu yàlla dimbalee balaa décembre wala maximum balaa mars deux mille deux mille vingt bëgg nañu commencé projet pilote sur vingt jours et que bi ma wanee bi ma wanee xayma njariñ bi nag boo jënd ñetti weer yu nekk di nga donc ça c'est le premier projet qu'on appelle embouche au Sénégal et qu'on appelle engraissement. en Europe. Le deuxième projet nous allons faire passer on va faire passer chez vous. La Belgique, c'est un tout petit pays. Il y a encore plus petit, hein, c'est le Grand-Duché de Luxembourg. Mais la Belgique, c'est un tout petit pays, mais c'est dans ce pays que se trouvent les, les animaux les plus musclés du monde. On Belgique.

Toutes les photos qui sont là, c'est des photos que j'ai prises. C'est de la génétique, c'est du naturel. Il n'y a rien d'artificiel, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de chimie. C'est de la génétique pure. Vous comprenez bien qu'une université comme l'université de Liège ne va pas jouer avec des moyens artificiels. Ici, nous, on se bat pour garder la diversité on se bat pour le naturel. Et, et on, vous comprenez bien qu'on n'est pas venu ici pour intoxiquer des gens. Hein? Bon, je suppose que ça va de soi. peut-être doy na waar doy waar boo xam ne nii da ngay defe ne sax c'est pas naturel mais photo yooyu yoo xam ne nii moom moo ko jëlal photo boppam et que lépp c'est naturel mooy c'est parce que race bi moo baax baaxaay boo xam ne nii moom mooy tax mu gé mu joxe rendement bi muy joxe et su koy su koy indi ci dëkk bi dafa bëgg mu naturel aussi et que li ma njëkk a wax bi ma koy indi bi def ni ma benn condition pour man ma bokk ci projet bi mooy nag bu ñu def croisement dañuy rey nag bi Abdou Cissé bi y a de cela 35 ans astafurlah y a de cela 40 ans moom ak magam bu góor xaw ma rakkam bu góor bu ñuy wax Sayer Cissé ñoom rek ñoo fi jàngoon ci anor yi il faut apprendre ça. ñoom rek ñoo fi jàngoon si àndoo yi et que tey seen village. vous avez eu ça am na ñaari docteur. merci beaucoup am na 15 maîtrisards am na une dizaine de licenciés am na ñaari greffier donc Abdou yow tu as été un rôle modèle pour nous. dama doon ñaan yàlla ma ne yàlla naa yàlla yàlla na ma yàlla dimbali ba mu mel ni Abdou Cissé ak Seye mosuma leen gis ça fait 40 ans man ak moom gisante wu su ma ñëwaat dégg moom ma tax sama nijaay jàpp dama doon ñaan ma ne yàlla naa mel ni ñoom. donc la lumière bu ma bi ma éclairé ba yàlla dimbale ma ba ma mën a def lii dama la koy njukkal am mais di la aussi delloo projet bi wax ne projet bi. suñu yàlla dimbalee ba université Saint euh, Saint-Louis université Liège université virtuelle du Sénégal accompagné ñu université euh, euh, Cheikh Anta Diop accompagné ñu dama bëgg a delloo projet bi nag tegaat ko ci sa loxo yow ak sama nijaay Ali ak waa dëkk parce que bëgguma mu nekk projet gàddu kese dama bëgg mu nekk projet gox et que maa ngi lay ñaan Abdou yow ak sama nijaay Moon Ndiaye sama nijaay Boubou ak sama ak sama sama sama suñu mbokk bi sant Mbodj. te mu nekk Mbodiène ak sama ak ak ak ak le commissaire Ka nga indil ma suñu mbokk pël dama bëgg yéen ñëpp ngeen def projet bi seen seen usine bëgguma mu nekk mbirum gàdd kese dama bëgg mu nekk mbiru gox bi que li may ñaan yàlla mooy yàlla na yàlla dem mu nekk la la coopérative du coin l'usine du coin la ferme du coin et docteur ñii ñett dama bëgg man duma fi nekk des fois jot ci du ko maye. Mm-hmm. mais ñoom ñoo nar a nekk les interlocuteurs principaux. tout à fait tout à fait. Abdou bi muy ñëw waa Khoule dañu def mbir mu rafet étudiants Dakar yi nga xam ne ni dañoo cosaanoo Khoule bëggoon nañ ñibbi ñoom ñëpp ñu bàyyi ils ont une dizaine. ma ne leen nag dara ñun ñii ñoo bokk mbir mi. suñ ci àndee ànd ak waa comité garde bi Ibra Diagne mi def saf saf moor moor mii moor sànq da nga ñëw ñëw taxaw moor dama bëgg xale bi ñu ñaanal ko parce que xale bi. Messi Messi. kii faral nee na mooy suñu Messi xam nga Lionel Messi moom di football xale bi. dama koy yee xam nga assisté wax man su ma xasee am soxla du ma nelaw deux heures du matin dama koy yee moo defal lii moo defal lii moo defal lii musul wax sonn la musul wax tàyyi na te lépp daf la koy defal ba mu ne kocc ne karaj wax la lépp nu mu def si on a su dee mun nañoo délivrer jàkka ji kër sëñ Touba bi usine bi lépp muy jox yoon xale bi def ci saf saf yàlla na ko yàlla lafal cet Ibra Diagne yàlla na la yàlla lafal cat Ali Diagne moom sama nijaay buubu sama nijaay jàpp yàlla na la yàlla lafal cat am na xale yuusu ana yuusu Ibra mooy Ronaldo ana yuusu yuusu mi aussi daf ci sax sax ba ci Mali Diagne nekk tout euh, Côte d'Ivoire xale yi dañuy dañuy dañuy ils sont imprégnés ak Cheikhouna Diagne Modou Mbacké Diagne donc loolu moo tax ma ne docteur euh, soo jiitalee nijaay Abdou Cissé mi papa sama nijaay euh, buubu sama nijaay Ali sama nijaay moon jaay ak xale yi man lu gën a yomb man moom laay def mooy def uti xaalis peut-être loolu loolu laa jàng peut-être loolu laa. mais li nga xam ne nii mooy moteur bi doxal mbir ñii ñoo ko yor et que docteur peut-être ñoom seen jàng yu eggul fenn fi c'est la raison pour laquelle aussi may lancer un défi à nos partenaires de l'université virtuelle du Sénégal on s'est lancé un défi que ne fii fii euh, ak at juróom fukki xale ci dëkk bi dinañ mun a bind mun a lii. et donc suñu si suñu bureau bi la ñuy commencé nee bi suñu bëggee lii dox da ngeen mën a bind mën a lire nee naa leen léegi su may wax yéen il faut ma vidéo te vidéo bi ça coûte de l'argent et que aw mii duma bàyyi ma fenn lépp lu ñuy def dañ koy vidéo des fois même film bi pour ma illustrer vision projet bi. on a payé plus de 400 000 francs CFA pour faire la vidéo. donc professeur teg naa si samay waajur yi si sa loxo Abdou Cissé mi Abdou dañuy dañuy lay jébbal aussi projet bi yow ak sama nijaay Ali sama nijaay Boubou sama nijaay Mon Ndiaye comité bi moom man ak Ibra suñu gars yi ñun dañu leen di jàppale rek sama xarit bii nag ñuy wax Boubacar. moom mënu ma ko fay ci kenn mu nit def na ci wax na ci expert bu ma soxla rek am na sax benn bokk fanaana bu ñu wax agul muy tomate indi na ma expert parce que machine bi ñu leen di indi du defar tige dege kese machine bi ñu leen di indi sama nijaam Mor Mbaye def na ma ketchup kan dox na tomate dox na machine bi sax dafay dafay dafa am benn option donc docteur sincèrement on du ñu ménager aucun effort pour pour faire la phase pilote et que li may li may dénk mbokk yi aussi mooy xaalis yi nga xam ne nii moom la ñuy moom la ñuy commencé cotiser du ñu ko laal tant que bi pare su phase pilote bi pare ba nga xam ne nii professeur Pascal signé na. docteur signé waa université bu baax Bambey signé ne ah lii kat mën ngeen a commencé projet bi ñu doog a commencé donc docteur loolu daal laa la bëggoon xam te Abdou Cissé mii aussi dama bëgg à partir de maintenant ñu boole ko ci comité bi waa xule yi ñu boole leen ci comité bi euh, sama nijaay euh, buubu ak sama nijaay alim yi ñoom ñoom ñoo xam li fi doxal li fi la dox comité bi moom mooy Ibrahima man ak samay gaay ñun moom ñooy soldat yi nga xam ne nii ñoom ñooy doxal affaire xaalis yeeg affaire partenariat yi mais technique bi moom dama leen koy bàyyee yéen techniciens yi am na côté boo xamante ni am na ñu ñu ci gën a xarañ bu dee ci wàllu élevage la parce que bu ñëwee ba waxtaan ak nit ñi dina ci am peut-être ñoo xam ne ci mbiru fas la ñuy bëgg a yëngu ñeneen ci yeneen ak yeneen donc am nañu ay naataango comme euh, directeur général u ARA national de Kébémer. directeur u centre national d'amélioration génétique ak chef u centre d'impulsion pour la modernisation de yi ñoom ñëpp dinaa ci waxtaan ak ñoom fexe ba impliquer leen ci projet bi hein et puis ñu envisager je pense lu ñu war a teel a def mooy envisager def ay visite ay visite d'échange niveau Saint-Louis parce que am na déjà ay ferme ak liggéey yu fa nit ñi déjà commencé def je pense que waa comité bi mun nañu programmer ñu ñëw Saint-Louis àndandoo visiter yooyu balaa ñuy démarrer seen projet donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. nee na aussi yow ak Abdou Cissé ak waa comité bi léegi suñu demee ba war ba recommencer dafa bëgg ngeen def aussi ngeen dem Saint-Louis ngeen visiter dañuy def ñoom pour xool nan la ñuy mën a arranger affaire yi. ألا نحسن عاقبتنا بالأمر حبها وأجرنا من حسنها آمين أم رب اكفنا سعيدا آمين اللهم يا من حجابه المحجوب وترسيه آمين أحد بيننا وبين ما يريد أن يبلغنا قبر أن يكون يا آمين يرحمكم الله هو السميع اللهم يا حبيب الذي لا ينسى ويا من له الأسماء والصفات الأولى أسألك أن تحفظنا بما حفظت به آمين إنك قلت وقبلك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له معقبات من بين آمين والله من ورائهم يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وشيطان وكل نافس على العقول ومن أنواعنا بالحصول وفارقنا في طرق تضليل وسلك الذين يشبها من أريدها أن يسف بالعياء وبرجال بالحياء وكن أمامي آمين آمين وكن وسبي وفي يمينك أن يرجع سبحان ربك من يرجع الحمد لله آمين آمين من يرجع ismi